متى يبدو في الداجي البهيم جبينه يلوح مثل مصباحي دج المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لاسم إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي بإن قد معه معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم وفي عطفه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل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 وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إنما كن منهم فلي بحبهم عز وجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تنية الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع يبغي بها محمد يا ربي بمدد الشفيع المنقي البديع ابغي بها يا ربنا صل على خير لنا ممن على على السماوات العلى بإذن ربه العليم يا ربي بمدد الشفيع بالملك البديع أبغي بها أهلا بشهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي احمد شهر الربيع الاول صلاة ربي بمدد الشفيع بالملك البديع أبغي بها معملي قد خص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع لكل خاطب مفضل معضل تعالى ربي بمدد الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها محمد أهلا بشار الفرح شردها بطرحي ومخر وفخرنا والمرح شر النبي الأفضل ثنيت ربي بمدد الشفيع بالمنطق البديع بغيبيا شهر الفلاح والسرور شهر به ساد دهور موشح بين الشهور متوج مكلل تعنت ربي بمدد الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها أهلا بشار الفاتحي إغلاق كون الفاتحي من خص بالفواتح وحاز خاتم الملل تعنت ربي بمدد الشفيع المنطق البديع أهلا بشهر الخاتم شهر نبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول تعالى ربي بمدد الشفيع بالمدق البديع أبغي بها أهلا بشهر الناصري للحق شهر الآمري بالعرف شهر الظاهري بكل واس نكمل ثانية ربي لمدد الشفيع بالمنطق البديع أهلا بشار الهادي لمنهج الرشادي وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل يا ربي من مدد الشفيع بالمنطق البديع أبغي يا محمد أهلا بشهر سيدي لأحمر وأسود من حاز سبق السدد يوم اعتذار الرسل يا ربي كفها كلها عباءها وكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل كان ربي بمدد فيا لها من خطة جوابه في الحطة من ربه سل تعطى واشفع لدينا تقبل كان ربي بمدد سبيل أهلا بشهر المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل شر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل يعني دعنا ربي لمدد الشفيع بالمنطق البديع الغيب يا محمد شر الذي أساره إلهه واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل يعني دعنا ربي لمدد الشهر الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط عليه جبريل وهبات بكل بكل وصن أكمل الشهر الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي كان ربي بمدد شفي في المنطق البديع أبغب يا محمد أهلا بليل اثنا عشر فيه ويومه الأغر وفي بذلك السحر ونور أفقه انجلي كان ربي بمدد شفي في المنطق البديع أهلا بكل ما ظهر من خارق يعي الذكر ذيك رفع البصر إلى مقامه المعتلي أهلا بكل ما ظهر من خالق يعي الذكر ذيك رفع البصر إلى مقامه العلي يا ربي من عديد وما راته من عجاب أمنة حين نصاب صبابة ثم اقتراب بسجد ذي المبتهل محمد كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بالصنم المجدد ثانية ربي بمنة وغاضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجله وجنهم في نكدي لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من اجل خير رسله الشيطاني جر عظيم شاني من أوضح البرهان لعظم ما به ابتلي كان دور فيهم لمرات شفيع لمنطق قد منذ بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل كان دور فيهم لمدد شفيع أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود فيه محل زحلي وصابع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلهه في الأزل كان ربي بمدد الشفيع بالمنطق أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي يا ربي بمدد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل أهلا بيوم اثنين مولد سان اثنين مبعث السر الكوني مقدمه المبجل أكرم بشهر العجمي إبريل شهر الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير رسله يا أكرم بيوم صار عشرين وسط نارا لمن حوى فخارا وغفرة من منزلي يا ربي بمراقي شفيع بكر بشهر نيسان مولد خير إنسان قدوة قدوة آل الإحسان والكامل المكمل قد تمت ليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل يا تهنئة الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملة تهنئة الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملة أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أمله تهنئة الربيع والختم لي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل كن لنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي صلى الله وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كون الإله ما دام كونه إله من أبد لأزل وأهله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل. ربي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 كيف أبدأ حديثي إليكم فكل الذي مر في هذا المجلس من الحديث كان حقا حديث كريم قوما قولا كريما من قوم كرام لقوم كرام أيضا ولا نعرف آه هذا الذي ذهب معنا إلى المقامات وإلى الحضرات وإلى أعماق الأعماق وإلى المعارف وهذا الذي ذهب إلينا بالفرنسية أيضا نفس المذهب وبالإنجليزية أيضا نفس المذهب دليل على أن السنغال وشباب السنغال شباب حي شباب حي في دينه شباب حي في عقيدته شباب حي في نشاطه شباب قادر على أن يتعامل ويتكيف مع العلم ومع المعرفة أي لغة صيغ هذه العلم وهذه المعرفة ها وكل هذا ببركة آباء لنا سبقوا على هذه الأرض ومدوا أيديهم لله تبارك وتعالى اللهم أكرمنا بدينك اللهم أكرمنا بقرآنك اللهم أهلكنا بالصالحين من عبادك اللهم أكرمنا بنبيك فأجاب الله دعاهم فكان كرم السنغال وشعب السنغال في دينه وفي علمه لا يساويه كرم في أي مكان كان وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وحقا الله ليس له على أحد أي شيء ليس له على أحد أي شيء إلا كرمه وفضله ومن كرمه وفضله من على السنغال بما من عليه من من كبار من كبار رجال حقيقة كلهم على قدم نبي سبقه كلهم على قدم نبي سبقه وكلهم حياته تحكي حياة نبي سبقت من الأنبياء السابقين إلى إلى مقامنا هذا أيضا يحكي حكاية قوم كانوا مع أنبيائهم يصغون ويتبعون ويؤمنون وينصرون ويبذلون في الله تبارك وتعالى نفس القوم ونفس الرجال ونفس الرب ونفس العطاء الالهي الذي لا ينقطع ابدا مع الانسان نرجو من الله تبارك وتعالى ان يدوم معنا هكذا وان يدوم معنا هكذا الى ان نلقي الاباء والاجداد وهم بنا راضون mbokk آه، yi في دجي ماغي بايكو ميرينا ماغي maa اندي نيو cheikh Ahmad Tidiane alxalifa ak nuyoo cheikh Tidiane Cissé ak imam ak mbooleem waa Mérina yépp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seeni ñaan ak seeni barkeel yal na yàlla nangu guddi gii yal na guddi gii nekk guddi mbóot guddi barke buy jógee fii tasaaroo ci senegaal yépp waaye tasaaroo ci Afrique yépp waaye njëkk tasaaroo ci biir dakaar yépp ndax itam waa Dakar ñoo ko moom bon nag ñoo ci war a ëppale waaye terewul nag bu leen fàtte ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi tàllal seen loxo bëgg ci barke guddi gi ay nit ñu nit ñu kawe nit ñu baax boo yàggee ci teen olof njaay ne baag fekk la ci ah? guddi gi yàgg nga ko def waaye tey la taseeg rabiul awal ah, ren la taseeg rabiul awal parce que nit daf ne dàkk bëgg gis yonent yàlla muhammad bëgga jokkalante ak yonent yàlla muhammad xeb na ci jokkalante xayaal mais daf ko bëgg muy jokkalante bo xamne surtout surtout ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa hunaka تلاشت الروح والجسد ها فكان اللقاء ابديا ازليا لا تنتهي ابدا وارجو ان يكون هذا اللقاء من تلك اللقاءات العظيمه الذي جمع ما جمع وانتم تعلمون don deug deug guddi gu kawe la ci nit ñu kawe ñu rafet taar bu rafet ko xol rek mu gëna rafet sa morom ku wax itam sa wax gëna rafet sa waxi morom ha lolu parce que booy góorgóorlu di ud dara fokk yàlla dimbale ci guddi gi dañ ko sos bëgguñ lu dul taseeg yonent yàlla Muhammad lolu rek lañ ci bëgg taseeg mom fi ci àddina taseeg mom ëlëk ci àllaaxira lolu rek moo tax ñuy def suñ guddi yi defuñ ko pour ne feetu diine la dañuy feetu si suñ diine waaye comme que feet nécessité la ci doomu aadama di doomu adama mën ta ñàkk feetu ah la ko dalee ca bu yàgg ba ci léegi ñu ngi feetu ñi ngi feetu mbay ñi euh, ngi feetu nangam ñi ngi feetu nangam ñi ngi feetu nangam kenn ku nekk am nga loo xam ne bu jotee nga feetool ko kuy feetu sa feet gi am nga lo xam mo moo ci djublu ñu dañuy fétu ñun tamit parce que nécessité humaine la fétu deug la nécessité la lu wara a nekk la nécessité sociale la lu war nekk la kenn ku nekk boy fétu comme ni mo leen ko waxee koroog am nga ko bëgg mu gis sa feet ñun yonent yàlla Muhammad lañu bëgg mu gis suñu feet ah yonent yàlla Muhammad lañuy ñuy bida wuñ oote wuñ bida waxuñ ne diine la wax dañu dañu bëgg yonent yàlla Muhammad bëgg togo ak mom motax ñuy joxe suñu alal joxe suñu guddi joxe suñu yëpp loolu la ñuy ñaan yàlla te ku yàgg ñaan yàlla yàlla dina la may yàlla ñu yàlla may ñi wax fii ñëpp ñu wax ci arab ñu wax ci anglais ñu wax ci tubaab fa am benn journaliste bu mag ñu koy wax abdul Wahab Masiri moom la commencé journaliste la commencé gannaaw gi mu nekk écrivain gannaaw gi mu nekk islamiste bind ci l'islam di wax wax yu rëy benn bés muy dem di defi conférence waa ji di ko présenté naan kii mooy nangam kii mooy nangam kii mooy nangam kii mooy nangam ñu présenté ba pare mu ne ko bu conférence bi pare ma woon ki nga doon wax kan la <laughs> dig ma woon ki doon wax kan la tamit def naa bu ñu jógee di ngeen ma woon maax yi moom doon wax anamu ah dëgg waaye loolu yëpp euh, yàlla yàlla ak doomu yi dualité boobu rek moo fi nekk yàlla ak doomu adama الخالق والمخلوق وكما دياليتي بايي ن لجي دو مال اي لجي دو دو بون ها وكما بوبو ماغي واخ دياليتي بيغا خامني جام امنا بروم جام امنا ينفي يالا امنا مو بند كيم بند امنا مينفي كيم بند امنا مينفي مو نين ني يالا نيو بند كين مو موتاخ باي مو لين بند لين بند خاج لا سي bi ñu bind xaaj la ci ki ko bind bon dualité boobu diggante xaaliq wal maxluuq ah du fi mën a ñàkk waaye xaaliq maxluuq dualité boo xam ne nag sànniwuñ ko fële utuñ ci benn jubluwaay rek ah utuñ ci benn jubluwaay dañ cee ut dañ cee ut ne yàlla moo fi nekk ak ay jaamam ay ak ay jaamam yow yàlla mii borom yow jaam bi lan ngeen séq lan ngeen séq ah yàlla nee na liñ séq munoo koo xam te man waxaluma la ko ah doomu aadama yàlla may na ko moment bu yàgg yàgg yàgg yàgg ne ko gëstul seetal gëstul moo tax gëstu nañ gëstu nañ parce que doomu aadama mësta tàggoog mbóot bii mbóot bii di ko ragalloo mbóot bii di ko yaakaarloo mbóot bii di ko yëngal mbóot bii di ko dalal yàgg naa gëstu pour xam mbóot boobu lan la yàgg naa gëstu pour xam mbóot boobu lan la mbóot boobu nag xam na ko ci manifestation yu bëree bëri ci manifestation yu bëree bari xamee na ko ci xamee na ci ne yàlla mooy géej yàlla mooy jant bi yàlla mooy bant bi may daaj yàlla mooy ngelaw li yàlla mooy nangam yàlla mooy nangam loolu yépp كاتنا دوم عدما فوف لك تولون فور مو خمي كو يالا فوف لك كاتنا تولون يالا مو مك مو بندكو العزيز الجبار المنتقم خالي بي جوك دي رام غا بوكو كو واخال دان كوي سونال خالي بو دم دال الف با تا غا نان كو انشتاين موني نانغا مك نانغا مك نانغام جانغالوكو ها نكو بوغا سانال mais da koy bàyyi muy raam di jóg ko daanu nga di ko wax alif ba wala nga naan ko ab ba muy àgg nag mën a booleel ci boppam ab naka noonu tam yàlla dafa bàyyi doomu adama ne ko demal gëstu ji yow kenn moom kenn gëstu na gëstu na gëstu na bu baax a baax ah ay ay xel yu rëy génn nañ ci àddina bi pour kenn ku nekk bëgg dimbale sa morom man mbóot mii ma séq lu rëy lii lan la ak kanama booleeg moom kana ma booleeg asamaan si kana ma booleeg géej gi kana ma booleeg suuf si kana booleek sama bopp sax kana ma booleeg moom sama bopp sax kana ma booleeg moom man lu tax may tiit man lu tax may tiit man lu tax may am yaakaar man lu tax may am yaakaar gëstu gëstu gëstu xam xam xam xam xam xam nit ñi di xam di ut di ut di xam bon ba mu soob yàlla mu ne man maa lay won sa jaaruwaay pour am ci man pour agsi ci man man maa lay won jaaruwaay pour agsi ci man ah wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib fa inni qarib nekkuma ci asamaan si nekkuma ci biir suuf si nekkuma nekkuma nekkuma waaye maa la gën a jege sa buumu xol maa la gën a jege sa buumu xol ah ba tey loolu indil ko complication yow mi ma gën a jege sama buumu xol googu ana nga ana nga ñu ne la loolu kenn du ko wax ci yàlla kenn العلماء المستحيل في الله اين وكيف ونانغ ماك نانغام مي دي نكو واخ دي نكو واخ انانغا بار فورس ني واخ كوكو باسكو مين في واي نك انانغا كان كوي لاج من لا تونت موتا موتاخ بوكو لاج يروكو باسكو لو غيس كو تونتو ku la tontu daf lay yokkal ay problème philosophie jéem nañoo tontu munuñ dañoo indi rek yéeg ko wàcc teg daanoo ko jóg ak mbëkk ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam sonn nañ ba bugg a dee ah waaye soxla boobu bu satisfaisant boobu nga soxla ci sa biir xol amuñ ko munuñ la koo jox scientifique yi ne philosophie yéen toog leen bàyyi leen parce que munu leen ah bàyyi leen ñun nag dinañ leen yóbbu ba ngeen xam

Donc, adama du comme une coquille, ko gisee dafa ñëw rek hasardement comme ça donc bon moo ñi fi fekk ñu comme ñoom rabi Ali, yi nga fekk leen ñu am jikko yoo xam ne ñoo ko bokk doomu bu xiifee dina uti rek njaa njaa njaa àll yooyu tamit bu ñu ndaa àll yi bu ñu gëmmentoo ut fu ñu nelawee ndax ñoom ñaar seen nelawukaay yi ak seen lekk yi ndax mos naa niroo musul niroo hmm? nga ñëwati ci doomu adama nga seet ci boppam jamono boobu doomu adama yeeg njaal yi bu ñu xiifee rëbb rek dañuy rëbbi doomu adama bu rëbbee ba ñëw rab bi mu rëbb dina ko dessin tabax dessin ko ci taax yi wala nangam ak nangam commencé di di di di di di di di créer ah aar aar di dessin lim gis ak nangam ak nangam commencé di jàng bindi te yooyu ñuy wax ne fi la bàyyeekoo kenn si ñoom mosu cee jàng bind kenn mosu cee yoom kenn mosu cee yoom bind dama dama gis nañ ko ci jamono woowu léeg mu def ay xuus maanaam lu mel ni ay jaamu yàlla di def ay ñaan ah doomu adama yàgg na ko def bu yàgg te ñee waxoon ne ci lañ doomu adama yi bàyyeekoo ba léegi mosu ñoo gis ne golo yi ñooy gàmmu tey. wala bukki yi ñooy gàmmu tey wala gaynde yi ñooy gàmmu tey kenn musu koo gis wala ñooy ñooy sabaru wala ñooy def benn pièce théâtre kenn musu koo gis te doomu adama yàgg naa def loolu bu yàgg donc bon loolu di génne doomu adama ci njaal yi ci jëfi doomu adama ci boppam loolu moo lay xamal ne kii jógewu fi ñëwu fi rek par hasard def fay ñëw ci kam xam-xam boo xam ne ku xam la ku mën la ku am kattan la ku am na mu namm mala foofu la doomu aadama bàyyee ko waaye nag comme que yàlla may na ko espace de liberté dafa lu la neex muy ut di tànn di ut di tànn di ut di tànn di ut di tànn ba yàlla won ko ne nag man rek maa la mën a jubal man rek maa la mën a jubal man rek maa la mën a teg ci yoon wi nga xam ne moo lay jokkalante ak man ah yoon woowu nag ci la yónni yónnante yi ñu tàmbali di ñëw benn benn la ko dalee ci aadama ne nañ yonanti la ba ci yonanti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp kenn ku ñëw boo ñëwee sa asaasu risaala sa risaala fi mu sampu mooy waxal la ilaha illallah yàlla kenn la moom rek ñu war a jaamu li ngeen di gis yëpp ragal ko dara du ci yàlla dara motu ci yàlla safara matul yàlla këram bi ngay jaamu matul yàlla nangam ak nangam bi ngay jaamu matul yàlla te doomu aadama jaamu na lu nekk jaamu na lu nekk ah. jaamu na ndox mi jaamu na géej gi jaamu na ngeen baal ma sàkkara jaamu na pëy jaamu na lu nekk ba ba léegi sax am na ñoo xam ne ñu ngi ci ci euh, ci asiatique yi am ñoo xam ne benn euh, feet boo xam ne bu xewee je sais dañuy tabax lu mel ni góor ngóora noonu daf ko benn bu rëy rëy di ko feetoo di ko wër nit ñi di ko seetaan ah donc bon doomu aadama fu nekk rek fu nekk rek jaar na fi pour àgg ci guddi yi pour àgg ci yonent yàlla Muhammad àgg ci kamaal comme ni ko xale bi waxee sànq ci waxam al jala al kamaalu wal kamaalu wal jalaalu nangam ak nangam ak nangam yooyu yépp du doomu aadama dafa tëb rek franchir ak agsi ci mais dafay dox ndànk-ndànk muy wàcc ndànk-ndànk ci moom muy wàcc ndànk-ndànk ci moom ba ba muy ñor diine yi ngay dégg yépp dalee ko ci yonent yàlla aadama ba ci yonent yàlla muhammad benn diine rek benn diine rek la al islaamu qabla muhammad wal islaamu baada muhammad al islaamu qabla muhammad wal islaamu baada muhammad al islaamu qabla muhammad boo demee ci yonent yi ñoom nga fay fekk ah huwa sammaakumul muslimin ah wa uridu an akuna min almuslimin rabbi qad ataytani min almulki wa alamtani min haka min ta ba ba laay jeex ñoom ñëpp muslimin muslimin muslimin muslimin muslimin loolu lañ bëgg a doon bon loolu mooy l'islam qabla muhammad l'islam boobu nag yàlla daf ko daan joxe par par par nuqta nuqta ah kenn ku ci nekk lu tuuti rek lay jox ah yonent bu ci nekk lu tuuti rek la lay jox ne la ameel lii yonent yàlla Moussa am na shariatu tawraat waaye ba yonent yàlla yu yu Isa ñëw bi mu ñëwee am lu mu folli ci tawraat ne bàyyi leen ko am yeneen yum indi ne nañ topp yooyu bi yonent yàlla Muhammad ñëwee nag ci la yëpp matee la tawraat doon wax dëgg la la linjil doon wax dëgg la la zabour doon wax dëgg la la furqaan doon wax dëgg la waaye haza al kitaabu al muhaymin ah nga xam ne moo timtiire yépp bii nag moo leen indil kamaal gi nga xam ne mooy kamaal gi doomu aadama doon sàkku ah kamaalu doomu aadama taxta kamaalillah parce que doomu aadama lu mu rëy rëy itam yàllaa ko tiim parce que moo ko bind te mooy sangam moo tax sayduna rasulullah ah موي موي الكمال الكمال المطلق بالنسبة للوجود للكون ها كو أم نيكو جيتو كوم نيكو سيرين ييب واخي نيكو شيخ ما واخي من قبلها تبت في الظلال ها وفي مستودعين باتشي آه حتى بيتك المهيمن من خندة فعليا يعني تحت نطقه لو ييب دونك بون يوم ييب كان كوش نك دعاء نكرك رسالة رسالة من رسالة يلا مو يوني يونان على محمد كنت نبيا عالما بنبوتي وعدم بين الماء والطين يبنك كي موم لا يدفع استمداد ها كوش نك دعاء مجهلة سكيم بكتن jox Moussa kemb kattanam jox Moussa Isa kemb kattanam Daouda kemb kattanam ñoom ñëpp kemb ku nekk sa kemb kattan waaye ñoom ñëpp bi lislam yooyu ñu dajale leen moo tax yàlla ñu ne wàcce na téeméeri téere ak ñeenti téere téeméeri téere ak ñeenti téere yëpp yàlla boole na ko ci alquran alquran jooju yëpp yàlla boole na ko ci fatiha fatiha boobu yàlla boole na ko ci bismillahi rahmani rahim boo demee nag suuf yanke yi mais yàlla boole ne ko ci nuqtatu bisimillahi rahmaani rahim ah eh, voilà noonu la parce que xam-xam la te yàlla mooy yoxe xam-xam te tëjut benn bunt yàlla tëjut benn bunt xam-xam bunt xam-xam yëpp la tijji ndax ñi ñuy tuddee borom xam-xam léegi bokkut ak ñi ñu daan borom xam bu njëkk bokkut ak ñi ñu daan tuddee borom xam-xam bu njëkk léegi ku nekk rek matière domaine bi nga nekk pour xam ko domaine philosophique, domaine euh, médical, économique, Yep, man nga ci dem ba nek ci alim, ba nek ci alim. bu ñëk nak alim dañ jaglé lon rek ko xamné da nga def taxassus ci diine mbiri diine alquran hadis ci yàlla muhammad nangam ak nangam fofu la alim tëju won alim. waye léegi nak alim tijeku na ba daanaka ñoy sax fi nek nekk ay ulama ndax fi nek ni bo démé demee bi am mooy est-ce que ñii waratuñoo firi alxuraan walla déet parce que mënatuñoo dégg alxuraan parce que ku déggut géologie ku déggut euh, euh, euh, science yu bees yi xew ci àddina bi am na ay place ci alxuraan boo ci àggee foog nga taxaw parce que xamoo lu muy tekki ah loolu ñu ne scientifique yu bees yi ñoo ko xuloo voilà comme doomu aadama rek doomu aadama dafa bëgg xëccante ah, def nii def nii jikkooy doomu aadama waaye nag القران لكم لكو لكو يخل ويخل نكو بباري لا تحرك به لسانك ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا بيانه بيان الله بوب للقران يسري في كل فنون الدنيا ها يسري في كل حكمه الانسان في كل ما يفيد الانسان وحتى ويضر الانسان بودما ان علينا بيان بوبو لامبنكو ها بودي فك شي خم آه، خم دكتوري بودي فك شي خم خم ايكونوميستي بودي فك شي ميم خم خمو سيانتيفيكي أه, آه، ساينتيفيكي كم عبد الوهاب مستيري بي مالاي واخ مو تستك بن آه، ساينتيفيك بو خامني مو ديفار بومب نيكليير ني توك دي واختان مونيكو بيغا ديفاري بومب نيكليير بري لويك من قد ما وتشو هذا ما وتشو بس كخمنا اللي ما دفش عدنا بلان لا خمنا اللي ما دفش عدنا بلان لا الو تواجه تقول خم خم لا خم خم لا لول ما خم خم جرين ولا لا شو كده في شيء خم خم يو يبنك لي دق خم خم كي لا بايكو نك خم خم أموت خم خم يجي يب ci daara yi ak église yi ci la bàyyeekoo hmm? booy dem ci ñi nga xam ne ay communistes yi boo demee ci seen déclaration yépp ay termes bibliques nga fay fekk ñu di ko jëfandikoo ñu di ko jëfandikoo waaye nag fexe nañ ba fexe ne ba foog nañoo ko moom mais fekk moomuñ ko ah martyr ak yu mel noonu yépp boo demee terme biblique la terme religieuse la amuñ ñoom amuñ ko boo demee ci jamono itam xam-xam cosaanam yépp mooy daara ji daara ji église bi dugg na ci ci église bi dugg na ci daara ji daara yi dugg nañ ci daara yi foofu la xam-xam njëkk a génnee parce que su taxutoon nag yonent yàlla Muhammad génn ci àddina bi xam-xam bu leer bi du am ci àddina bi parce que moom ñëw na indi lumière salat ko ci kaw yoy fi nekkon yépp ba ku nek xam sa cër ci adina xamo yoonent yàlla muhammad doonul ne lu fi lu fi fek rek te te te te baxuton do ne condamné ne yépp do do ne condamné ne yépp amna yo xam def ne bàyyi leen bàyyi leen mu nek fi nek len fek mom han amna yo xam ne condamné nako ko bàyyi ko bokal ak yàlla mom amut masra waye gis nga xam ne dafa aju ci dundu nit ñi ba bàyyi leen ko fii jabaram ne ko damaa bëgg a seetaan sabar gi mu ne ko kaay toog sama kaw dox gi ma ma ma kaay toog sama kaw dox gi seetaan ah nga seetaan sabar gi c'est c'est c'est comme ça yu ak yu mel noonu innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq utammima makarimal axlaaq te boo demee axlaaq axlaaq mooy li nga xam ne mooy conduire addina bi su fekkee axlaaq am na lu nekk mën naa jaar yoon ñëpp mën a déggoo ci jàmm ñëpp mën a séddoo ci jàmm su fekkee axlaaq amut su fekkee politique politicien amut moral su fekkee mar sëriñ bi amatut moral su fekkee euh, liggéeykat bi amatut moral yëpp moral tënkatu ko fi mu ne di ko tënk rek mooy naka laay gaaw a amee rek bu boobaa dara doxatut waaye nag su fekkee dans tant que moral mi ngi fi am di di tëj nit ñi di tëj nit ñi bon waxtu nekk nit dafay dooleeku parce que boo ma óoloo ma óolu la ki óolu kii ki óolu kii ki óolu kii ñun ñëpp seetal jàmm jooju ñuy am ah ba liggéey bi dafay gën a yokk gën a barke waaye yow kooku bu bu ko yóbbu sa liggéey bi du la ko liggéeyal te palekat la daf koy sàcc seetal loolu ni mu bëree ah seetal ban résultat la indi résultat boo xam ne ñëpp dañuy jàmbatu rek ñëpp dañuy jàmbatu parce que li ñuy jàmbatu jógewut ci kudul ci ñun ah jógewul kudul ci ñun doomu aadama et puis c'est tout à fait normal parce que doomu aadama moo mel noonu moo tax moo mel noonu moo tax itam yàlla xam na jikkoom xam na ni mel moo tax am na xadis bu wax yow doomu aadama boo du toon di mooy yàlla di ma balu dina la fi jëlee indi koo xam ne daf may mooy di ma balu ma di ko baal kullukum xattaa'un wa xayrul xattaa'iina at-tawwaabuun yéen ñëpp da ngeen di juum ki gën kii juum nag mooy bu juumee mu dem tuubal yàlla donc bon yàlla xam na doomu aadama ak néew dooleem ak kattanam ak bëgg-bëggam ak itteem ak ak li koy baaree yépp lu ci nekk utal na ko loo xam ne boo ci accès jëfandikoo lii di nga jàll boo ci accès jëfandikoo lii di nga jàll boo juumee xayrul xawa xayrul xatta'iina attawaabuuna ah jógal rek faxasu continuer sa yoon ah boo demee mboolem jikko yi nga xam ne mooy tabax état mooy tabax diini mooy tabax yooyu yëpp boo demee yonent yàlla Muhammad jàngal na la ko ba mat sëkk bu yonentu ñëwutoon loolu doomu aadama du ko mun a xam xam-xam yu sew yii sax parce que booy dem ci tubaab yi occidentaux yi bala ñoo delluwaat pour xamaat seen seen passé mooy gannaaw bu julli ñi ñëwee yaa xam Ibnu Rushd yaa xam Ibnu Sina ah yaa xam Kindi yaa xam gars yooyu yëpp nga xam ne ñoo dekkalaat philosophe bi nga xam ne ci la grec yi nekkoon daan ko tasaare julli ñi ñoo ko dekkalaat bu tubaab yi xamaat ko ñëw jàngaat ko ci ñoom ah te loolu yonent yàlla muhammad ñëwam moo tax loolu man nekk ah ndax su fekkee maamuun amirul muminin moo wax ne dama gént platon mu ñëw ba ci man di ma ñaan ne dafa bëgg suma téere yi téereem yi ma dekkal ko ma dekkal ko ba ci loolu la tabax moom maamul ba tabax daarul ma ne ñim dajal ñi muy bëgg ñëpp mooy ñi nga xam ne xam nañ waxi latin wax xam nañ waxi nangam ak nanga pour ñu ñëw traduire ah passé boobu ñu ñëw ci loolu ci la ko tubaab yi traduiraat delloo ko ci seen lang pour jàngaat ko ah. te loolu yëpp ci barkelan ci barakatu yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam lutax mu nek ci barkeem yonent yeb bi len yàlla di yoni ku nek amna na caabi jum la jox ne la caabi jangi ni nii mom ngay deme yonent yàlla musa jox nako ko tawrat moy mooy maktuban indahum fi tawraati wal injili maktuban indahum fi tawraati wal injili boo demee moom tawraatam dañ ko bindal rek jox ko ko donc bon jàng bind amu ci ndax fekk na ñoom mën nañoo bind jàng nañ bind ah boo demee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom jox nañ ko caabi boo xam ne ubbi ci xam-xam mooy caabi ban mooy iqra iqra ah donc bon xam-xam yépp mu ngi sukkandiku ci iqra jàng waaye amul ci foofu rek allazi allama bil qalam bil qalam qalam am nañu foog ni mooy bindkaay bii rek nii waaye du loolu rek mooy xalam loolu du mooy xalam loolu turam la waaye du mooy xalam ah, xalam mooy mooy xàmme xàmme mooy xàmme ah alors foog boo moo tax boo ñu euh, ci iqlimu Sénégal iqlimu Sine Saloum iqlimu Maghrib iqlimu Nangam loolu yëpp minal xalam tamyiz tamyizul umur dem ba ràññee ko xam ko loolu mooy xalam. نون والقلم نون والقلم بو ديمي اك لولو ييب موي قلم قليم بوبو نك يالا واخ موي دوم ادما دينا اك سي فوكم ني دا فاي مانا خامي با دوتو مانا رير با لو نك رك بو كو يوتو سي خام خام مانا سي اك يوتو نين سي خام خام با اك فو نك سي خام خام اك نين اك نين فو نك سي خام خام وايي نك فوفو ني اك سي خام خام تكنولوجيا بي lan la jëriñ doomu aadama fi mu nekk nii exactement su fekkee jëriñ ne ko itam dëgg-dëgg jëriñ bi feeñagut ndax tey la pauvreté gën a bëri tey la feebar gën a bëri feebar yu bees yoo xam ne ñoom xamuñ sax num mu tudd biola xaw ma ibola yàlla nañ ci yàlla musal ak yeneen feebar yoo xam ne mi ngi feeñ bu yàggul diggante Hollande ak ci pays Europe yooyu ñu ngi daagu bu baax a baax di tasaaroo ci àddina bi yooyu yëpp daf leen a bett xamuñ fu mu jógee xamuñ fu mu jógee waaye ñëw na feeñ ci ñoom moo tax loo yaakaar ne mën nga mën nga mën nga bu borom mën ñëwee rek nga xam ne mënoo bu borom mën ñëwee rek nga xam ne mënoo yàlla rek moo mën yàlla rek moo xam yàlla moomu mën xam ñoo ngi koy ñaan yàlla ñu xamal ci xamam yàlla ñu xamal ci xamam yàlla ñu dimbale ci kattanam yàlla ñu lokk leer ci leeru yonent yàlla muhammad weer wi ñuy dugg si mooy weer wi ñu am ñun jullit ñi ñun ñu topp yoonu ci Yàlla Muhammad surtout nag ñi ko nangu ne wi màggal la weeru fet la weeru bokkoo la wekku ndimbalante la ah ñun weer wi ci la ñuy jëlee ay leçon yoo xam ne ba déwénati dooñu dootuñ ko fàtteeti dootuñ ko bëgg a fàtte yàlla nag may nañu ñun ci Sénégal bëgg nañ yoonu ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg bëgg nañ ko ndax jotaay yi ñuy def كوشي نك ديف سا غامو gàmmu غامو رك pour ku ñëw waxtaana la ci yonent yàlla Muhammad deug deug boko ko bëggutoon doo ko defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mën nga koo def feneen ah te am na benn yi mu ne sawfa ashhadu lakum inda rasulillah anna sénégaliyina yuhibbuna rasulallah anna sénégaliyina يحبون رسول الله وهذا الشريف يشير إلى صدره كأنه يؤكد هذا المعنى كأنه يؤكد هذا المعنى أن أن أن السنغال يحب رسول الله ويحب سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم وفي جو عيونهم وقلوبهم ها هذا من فضل الله لنا متخ ريوبو ريوبو أمود كتل ريوبو أمود دولار وي بودي مي إنفلونسم تي أدينبي ريونا نيوبوكو ريونا نيونا ريوبوكو أم واخوما ريوبو أم على ريوبو am xam-xam comme Amérique Europe France waxuma yooyu ah yooyu ni ñuy influencer xam nañ ko mooy alal waaye nag ñu ñàkk ba pare mën a am influence boobu ci àddina bi foo dem ci àddina bi fekk leen fa te lan leen fay fekkee lu am njëriñ lay doon luy njëriñ nit ñi lay doon loolu Sénégal la ko yàlla sédd ah loolu Sénégal la ko yàlla sedd ci tegtal bi boo toogee ba ci kanam tuuti ay fan di nga gis ne avion dina jógee fu nekk ci àddina bi jëm ci Sénégal parce que bu ñuy màggal yonent yàlla Muhammad Sénégal lañ ko war a màggalee ji ah Sénégal lañ ko war a màggalee ji ñoom ñëpp dinañ ñëw màggal si yonent yàlla Muhammad fii ci Sénégal wa zalika min fadli jihaadi abain lana xaqan kaana mawqifuhum ma an rasulillahi mawqifan xaqan wa sadiqan Yum hein? ñoom ñëpp wax nañ ci moom ñoom ñëpp wax nañ ci Mérina fekk Cheikh Ibrahim euh, euh, Bay Khalifa boo Mimi Haj Malik, Si boo fekk Touba fekk fa ñoom wah. tamit seen wax hein? hein? ci yonent yàlla muhammad rek lañ ko wax motax ñom yag nañu tantal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ben way laaj na ma mu wax yéen gamu yeen def pour lan la ma ko gamu pour gamu la dañu gamu mu ne ma ci lu ngeen ko teural ma ko lu yomb jamono yi mam alaji cheikh haj malik si cheikh mohammed bamba nek fi ceddo yi bari ba bu ko dee tubaab yi ñëw dimbale ceddo yi te ñoom war nañoo tasaare diini amuñ kattan fi mu ne kattanu xeex pour xeex ak ñoom ne dañuy tasaare diini donc bon il faut yàlla dina leen wax benn méthode boo xam ne bu ngeen ci jaaree da ngeen tasaare diine te du ngeen sax xeex méthode boobu mooy lan mooy Sénégal daanañu am lu ñuy tuddee gàmmu baatu gàmmu du sax jullit ñi moomuñu ko dañ ko jël ci ceddo yi parce que ñoom ñoo daan am guddi gàmmu di gàmmu di gàmmu ñu ne guddi googu tubaab ceddo yi di def di ko fo ba bët set nañ ko jël ñun di ko waxtaanee si yonent Yàlla Muhammad loolu ko jël seen ñu jël guddi googu ci ceddo yi def ko mu rabiul awal bu jotee ñu dajale gàmmu feetu ceddo yi ñëw seetaan si gàmmu bu ba setee ñu bëree tuub ci ñoom man fàttaliku naa ci nari na bu nga man bu barseet alila ku bëgg a tuub ku bëgg a tuub lu mat ay ñaar fukki junne ñaar fukki nit wala téeméeri nit ah, ñoom ñëpp keroog nañ taxaw ilaan l'islam bon nag seetal loolu bu ko bàyyi di def c'est que daf koo gisee ci baayam moo tax noonu la baayam daan def donc bon loolu jihaad la fi sabilillah boo xam ne yàlla ko may pour ñu tasaare ko diine bon gàmmu cosaan boobu moo ko taxoon a jóg léegi nag jot na parce que looy topp ba mu jox la njëriñ dootoo ko bàyyi comme benn naar yi gànnaar mu ne moromam léegi bàyyi mu nga toppoon yow shérif nga boroom xam-xam nga bokk ci nit ñu ñu xam ah bàyyi topp nga ko rek pour kerse pour waaye euh, voilà léegi nag gannaaw nekkatu fii ñibbsil nag nga bàyyi nit ku ñun kooku nga topp nga ñibbisi say mbokk eh, naar bi ne ko man gisuma ko dofee ni yow mu ne ko ndax lan mu ne ko bàyyi ñes ba ma koy topp benn góor ñemewu ko topp jàmbar dëgg moo ko ñemee topp dëgg ba topp moo ko ñemee topp ma jékki ba nga xam ne fi mu ne topp bàyyi tiitar la xale yaa ngi koy tiitaroo man taalibi bàyyi laa yi ngi koy tiitaroo ci mbedd mi ma di ko bàyyi fu ma jëm fu ma jëm yow ma fenn waaye yow kaay ma dimbale la yóbbu la ci kaay ma dimbale la yóbbu la parce que yow mii jar ngaa dimbale de parce que yow da feebar de alors su ko defee mbiri yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne lu nekk def nañ ko pour arrêter ko pour xeex ko te juif yi ñoo nekk ci ay ñu ko bàyyi waxee ay bu nekk juif yi ñoo nekk ci suuf ay bu tàkk ñoo ko taal lu xew ci àddina bi gis nga mazahib siyaasi yi am yépp ñoo ko créé ñoo ko créé communiste ak euh, socialisme ak euh, libéralisme ak euh, capitalisme yooyu yëpp ñoo ko créé ah hein? bu ñu ko créé ba pare nag dem nekk fële mel du di pousse nit ñi rek ak ak ba ci bi nga libéralisme boobu nga xam nit nit alal rek marché waaye yow nit ki jaroo ko waaye waaye alal jeeg marché bi rek marché bi rek moo fi nekk ah marché noo mën a amee ci marché bi rek amee ko waaye li ci des moom nit ki moom di ko xool di ko yërëm amul njëriñ loolu moo tax su fekkee jafe-jafe yi xew ci àdduna bi am na lu lu lu lu lu tax mu am lu tax mu am lu tax mu am lu tax jafe-jafe yi waa islamiste yaa ngi fii di rey nit ñi ca Irak ca Nigeria ci Mali lu tax loolu xew lu tax xew ah pour di len dajal li ngeen wa li ngeen def def haram na yàlla bëggul ray nit parce que ñom xam nañ ko xam nañ ko waye nak lutax lolu am lolu lañu wara séti lolu

comme li di ibnu Xattaab waxoon bañ ko ne yaay buur mu toog di jooy di jooy di jooy ñu ne ko yow yaay buur falu nga looy jooy mu ne tënku tënku mbaam bu réeree jant ba sooyee bu yoomal qiyaamati jotee man la ko yàlla di laaj xam nga kuy xalaat tënku mbaam sa xel doomu adama génn ci de ah alors yi nga xam ne nag jamono yi nga xam ne nag gouvernement yi dañuy dañuy làkk rek dañuy làkk rek waaye bu bu dara des du du jëf vraiment boo xoolee mbedd mi doo gis dara ci jëf yi benn waay le 24 dafa jot mu dem wër wër wër wër wër wër wër ut lum jëndee ay kado yóbbul ay doomam amut ak njabootam amut mu ut lum jëndee benn copine amut mu ut lum jëndee dana kilo yàpp yóbbu leen ñu togg amut mu seet seet mënta am dara mu dem jënd leen benn sondeel dal li ñëw ne ut naa lu nekk awma ko waaye sondeel bii laa am indil naa leen ko yaakaar naa mu leeral leen ëllëg seen àddina hmm? sondeel ndax mu leeral leen ëllëg seen àddina ñun tamit ba ak ay xaritam amuñ waaye leeru yonent yàlla Muhammad a ngi nii ñu ngi yaakaar mu leeral la ñu suñ lu nekk ci biir ak ci biti nuyu sang yu tedd yi yëpp dëgg-dëgg sëriñ sang Njaay dama ko daan dégg rek vraiment am naa kontante gis ko te loolu yëpp alfadlu minka ak dëgg-dëgg kanam yu tedd yu rafet yi toog ci mbaar mi góor ñi ak jigéen ñi boroom xam-xam yi dëgg-dëgg yàlla noonu mooy doon mayam ku nekk la nga na mel noonu la mayam di niroo ak yow noonu la may am niroo ak yow am na am na ñu nekk tey mbooloo waaye setaana ma bay naa ah, setaana bu ëllëgee xëy na journal yi génne di dégg ne jam na nit paaka rey na nangam ak nangam te seen tabiatu daje moo laaj loolu ah seen tabiatu daje moo laaj loolu seen nature daje moo laaj loolu mais nature daje bii nag dafa laaj ku nekk toog déglu boo demee yëg ne am nga ci sa xol yonent yàlla muhammad am nga ci sa xol yonent yàlla muhammad parce que moo la tax a ñëw fii ah ku ci nekk kaddu yu rafet yeeg yu baax yi yu kawe yëpp ak xam-xam yu kawe yi yëpp ci diggante arab surtout ki doon wax arab man wax na sax yoo xam ne xaw ma ko ah dina tise mu laaj mu jàngalaat ma ko Ibrahima Thiam ki wax français da eh, ah, la même chose ki wax anglais Sénégal noonu la mel ah, noonu la mel abqariya abqariya noonu la leen yàlla may noonu leen yàlla bindee waaye itam boole leen kook nag ak tayal boo xam ne tayal boo xam ne Sénégal ñi si ñi si jàng jàng ba génn am sa diplôme wala am sa nangam ak ba ngay tàggoog université keroog ngay tàggoog téere c'est am na am journal sax duñ ko liir waaye boo demee ci réew réew yi nga xam ne dañuy liir laa ilaaha illallaah te am amuñ benn liggéey muy lu muy ah, liir journal bi

kenn parewut kenn ah ñu ñu ñu seet yëpp ba jeexal ko waaye fii Sénégal moom keroog ba nga jëlee sa kii keroog ngay lem tiir yi keroog ngay lem tiir yi comme Abdou Malik ibnu marwaan xam nga ne moo fi dàqoon a jàng alxuraan Abdou Malik ibnu Marwan ak ak Xajaaj ibnu Yuusuf Xajaaj ibnu Yuusuf lim liggéeyal alxuraan kenn liggéeyalu ko ah كان liggéeyalako Abdou Malik ibn Marwan moo fi jàngoon a tere dàqoon a jàng alxuraan bañ ne ko buur bi dee na yaay falu mu dal di jël kaamil bi lenn takk ne ko firaaqu bayni wa baynak jeex na c'est fini demal dem na amatuma ak yow nu am bokkatuma ak yow dara fi mu ne àddina ñëw na jeex na maa ngi dem ci àddina bi ah su ko defee dafa mel ni itam ñi coono coono ba nga duggee primaire ba ba ngay génnee université coono boobu nga bëgg a noppalu ji ah waaye Cheikh Baye mu ne àddina amul noppalu noppalu ëllëg yow qiyaamati boo bëggee lu rëy ala foog nga jaay ci sa bopp lu rëy foog nga jaay nelaw ala foog nga jaay naflaay ah pour jëndee ko lu rëy nga soxla te boo amee lu rëy nga soxla benn bëccëg rek mën nga cee fay àddina bi yépp ah benn bëccëg rek mën nga cee fay àddina bi yëpp ah ngoonu benn borom xam-xam seetal lu mu jëriñ ci àddina bi ngoon ngoonu Cheikh Ibrahima rek ci àddina bi seetal lu mu jëriñ ci àddina bi ah ngoonu Cheikh Matiyaan ci àddina bi seetal lu mu jëriñ àddina bi ngoonu borom xam-xam yépp seen benn jotaay ci àddina bi seetal lu mu jëriñ ci àddina bi su ko defee donc bon comme ni ma koy waxee toujours الشباب الشباب هم الغد ñom ñoy suwa ñom ñoy évidemment amna ay xam-xam yu bari eh, dagg nit dañu dagg yoni nit té dañu dañu sib amna bu ñu tuddé ci arab al français le prince ah bobu musiba musiba la pour musiba foofu doomu aadama mooy bul wax deug agal ci li nga jëm rek ah deug gi dina la àggaloo ci nga jëm def ko bu fekke deug gi du ci agalo baye ko fi tawax wax safaanu dëgg ndax nga ag fi nga jëm hmm ak yenen tire yu mel non yu bari ah te peuple bu dul jàng tire daf ko yomba réeral tire daf ko yomba réeral parce que tire bu am rek amna benen tire bu nekk ci côté téere bu am rek am na beneen téere bu nekk ci côté su ko defee nag jàng téere bii pour se pose itam lu wax nangam ak nangam ak nangam bu boobaa ngay commencé di dajale sa bopp loo xam ne ah ngay am sa personnalité boo xam ne yaa ko moomal sa bopp yaa ko sa bopp loolu yëpp nag mi ngi ci téere yi mi ngi ci jàngukaay yi yal yàlla dimbale leen dimbale ñu dimbale Sénégal may ñu mu nekk réew mu rëy ci zaaxir comme ni ñu ko nekkee ci baatin yal na yàlla barkeel Sénégal ak doomi Sénégal yi doomi Sénégal yu góor yeeg doomi Sénégal yu jigéen yi yal na yàlla boole Sénégal ci réew yi nga xam ne réew yu kawe la ci xam-xam ci am-am ci mën-mën ci réew yoo xam ne mën na régler problème ci àddina bi yal na ko yàlla boole ci réew yooyu ah, ci ay te te defee ko ay doomam defee ko ay doomam ndax lu nekk mën ngeen ko parce que preuve bi mooy lii mooy di ngeen gis nii kii wax ci arab benn nègre la ah, kii wax ci anglais benn négresse la kii wax ci français benn nègre la waaye bu fi yenn borom ñëwoon danga xam ne ñii li ñuy wax lu jub la lu correct la lu aw yoon la te mënuñ ci dindi dara donc bon may gaa fii yëg gaa ngi fii kattan gaa fii waaye nag

nga ñaanal ma bu ko yàlla di def na ko jaarale ci sama loxo ah bu ko yàlla di def na ko jaarale ci sama loxo voilà yéen tamit maa ngi leen di ñaanal teraanga Sénégal ju mag jooju ñuy xaar yal na ko yàlla jaarale ci seen loxo yal na ko yàlla jaarale ci seen loxo yal na ko yàlla dëggalee ci seen loxo jaahi rasulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Ibrahima Diop intellectuel la intellectuel la jàng na diine nangam ak nangam ak nangam waaye nag dafa mujj nekk intellectuel ba daanañ ko tuumaal yu bari nangam ak nangam inshallah xam nga rek nit bu ngeen voilà benn bés ñu tasee Algérie maintenant ma ñu reer ba pare may doxantu topp tefes li dem ba sori ngelaw li neex ma tëdd foofu topp tuuti rek dégg borom jóob di wéy سالما واصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني di wax di wéy ci kaw gisuma gisuma du ñëwee ba agsi ci man ma ne ko oustaz ma ne ko oustaz yow yaay wax lii yow ñu ne doo taalee ma bàyyi mu ne man damaa am lu dul bàyyi man damaa am am lu dul bàyyi damaa am lu dul lii lii laa am bàyyi laa am waaw ah, voilà ma ko man defaral nga ma tey sama bopp loo xam ne bu ma ko gisutoon nii kenn mënu koo defar ci man ah. rajul amul ku yem ci moom gannaaw yoon ci Yàlla Muhammad parce que mooy sangi sangi yi mais gannaaw moom nit amul ci àddina bi ku dul bàyyi hmm? pour moom pour moom nit amul ci àddina bi ku jar déglu ku jar jàng ku jar ànd ku dul Cheikh Ibrahim parce que waxu ko pour euh, daf ko wax comme mm-hmm. intellectuel parce que dañoo ànd mm-hmm. mu gis mm-hmm. àndandoo ni muy mel dañu séq téere mu gis boroom téere ni muy mel benn naari gànnaar daf ma nettali mu ne ma Cheikh Baye ma du taalibe Baye ab Wadud Abdou Wadud Abdul Wadud du Abdul Wadud nag wala aduut wala aduut dañu tasee defe naa rabaa am ko président ne ko doomu baay mu ne ma xam nga lu tax ma bëgg sa baay mu ne ko ah déedéet xaw ma ko kay mooy dafa am benn bés ñu tasee man ak moom benn congrès Koweït bañ demee biñ ko joxee kàddu mu jox ko baram Diop mu ne baram Diop Diop taxaw wax wax wax wax wax wax wax salle bi fees tàccu tàccu tàccu mu ne baram Diop pare Abdou Salaam mu ne bàyyi téye ci loxoom ne ko haza allamtuhu wa huwa afsahu minni allamtuhu wa huwa afsahu minni setal شتل درس بين الأستاذ وال بين الأستاذ والتلميذ قمة النضج قمة التعليم قمة التبري ها هذا أستاذ يعلمه لمريده آه عبد السلام ولا عبد ابنكم لأن معلمه افصح من معلمك <laughs> معلمه افصح من معلمك وي لولو رك موي موي كل رساله يونس على محمد صلى الله عليه وسلم موي لولو ها موي موي لولو موي اذا رايت في الانسان خيرا فاقر به واشكره واشعه ها لولو moy risaalatu yonent yàlla Muhammad kana indaqan xale bu jigen bi doon wax sank ci mom amna njumte njuumte yum juum mu nga won nekkutoon Akara mat maag mom ñoo boko nek université Winneba Winneba mi ngi tuddoon okoba of Nkrumah non la université bobu euh tuddoon Nkrumah daf ko tabaxone pour tasaare idée idée mi mu dajale fa Afrique yëpp ara ay arabe ak ay ay anglophone yi ak francophone yëpp dajale leen fa pour ñu ñëw jàng idéological ak of common kurma noonu noonu la noonu tuddoon ah alors nekk na fa nekk nañ fa lu mat ñaari at après ba dañoo dem vacances del si ñu coup d'état ko amee kurma affaire boobu yàqu mu jeex mais dëkk bu ñuy wax Winneba foofu la nekkoon de cinq kilomètres Dakar après fue waxuma la بلاغه بلاغه في اللغه العربيه لو كان وقوه كان وقوه وهي امنا اي علوم دقائق العلوم يو خامنا على فوق nga ag على مستوى الدكتوراه فوق nga dem université ba ag doctorat ngay doora meuna am buntu yo xamne ci ngay jaar pour geustu yeen xam xam yi ah oustaz Diop mus tëddem benn université ah waaye seetal bu demee bañ koy tuddee waxoon ko benn docteur dañ naan ko ak dakatira ah ay dakatira Barham Diop moom lañ koy wax Maroc moom lañ koy wax Màkk moom lañ koy wax fu nekk ak dakatira maanaam jamu dëkk jamu docteur docteur yu bëree bëri ah moom lañ ko booleel jox ko ko moom kenn ak dakatira oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ah te moo tax maa ngi waxtaan barki démb gëni ba yàlla bu mayee jeex na dootu nangu bu mayee jeex na dootu nangu waaye nag ki muy may na xam ni muy jëlee bu jëlee na xam nu muy defee waaye boo xamul ni nga jëlee bu la mayee itam may gaa ngi fi waaye doo xam noo ko jëriñoo parce que waatul buyuta من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها ها واتقوا الله وهذا سكر بنك ها فسكر واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويفتح الله ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه وهكذا وهكذا وهكذا لول يب يالنا يالا نيك نون تشنونو بجاه رسول الله barkel yàlla barkel mbolo mi barkel xale yi barkel guddi yi ba li ngeen ci bëgg yàlla may leen ko ta xamna ne amna ci lo xamne yàlla may na leen ko ndax amna ben xale bu ma tasee kafrin mu ne ma yow ya tax ma jël tariqa ya manako man mu ne ma manako ci la mu ne dama fekke gamu Oustaz Ahmad nga waxtaan fa dugg ci tariqati tijaan tuuti ci la tariqati tijaan duggee ci sama xol ba ma jàpp ko waaw macha allah te te te te sous sous préfet la sous préfet la donc du dof xam na li muy def xam na li muy wax bon man an yahdiya allah bika rajulan khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha wa arju an yakuna zalika khayran lana parce que yaay sababu jotaay bi mu ñëw fekkee ko hakka xàkk السلام عليكم ورحمه الله امين امين امين امين امين امين امين امين يا ربي اجارم اجارم ربي بي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع يراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع